bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi defe naa jataay bi buñ gisee toogaay bi rek buñ ci yemoon képp dana doy suñ jàmbaar ju màgg ja Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacké yàlla nañ ko yàlla fayal ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañ jëm muy douze juillet ñoo ngi ciy woo mboolem waa Emilia Romagna Marche à Abruzzo bàyyiwuñ kenn fépp fi président daayira nekk ñu ngi lay woo nga soññ sa mbooloo douze suwe onze suwe douze ñëpp teew si ñu jëmal bis bu màgg boobu nga xam ne suñ jàmbaar ñu màgg ja moo ñu ko tànnaloon muy Cheikh Mouhamadou Mourtala ndigalu doomu sëriñ Touba nag kenn mënatu koo am ci kaw suuf ñi ko amoon am nañ ko te ku ko amul woon duuda ko am kon bis boobu nañ ko dundal dundal itam bis bu màgg bi nga xam ne dana ci topp da moo moo ko jiitu muy ajuma ja mooy signature bés bu rëy boobu nga xam ne moom la euh, région bu Rimini may sëriñ Serigne Touba. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jërëjëf daam Dame euh, man nag dama leen di gaaral li nga xam ne mooy programme mu ñetti fan yooyu di àjjuma fukki fan gaawu fukki fan ak benn dibéer ja di fukki fan ak ñaar. gaaw bi fas nañ ci yéene ànd ak sëñ Mamor Mbacke dem ca conseil provincial ba ñu signé protocole d' accord bi nga xam ne. mooy gaaral mooy jagleel Serigne tubaab bis bi nga xam ne mooy 12 juin mu jagleel ko ci province Rimini ak li ko wër yëpp euh, bët set bu bët set sëñ Mamor dina fi yendu ci àjjuma jooju ba ca tàkkusaan gaawu ba bu soobee yàlla incha allah rabbi taala des na jagleel bis boobu Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke mi ñu ko daan jagleel yendoo cee jàng alxuraan ak xasaayit guddi gi it kuréel ya daan ci wii ba guddi gi sori ngir jéem koo delloo njukkal bët set di fukki fan ak ñaar ci weeru mois de juin ca saal ban ko daan defee mu nekk ca Belaria programme booba itam nii la tëddee fas nañ yéene bu 8 heures ñu ubbi saal ba door njàngum alxuraan mi ci njiital sëñ Alioune Tall mi nga xam ne moo jiite commission culturelle ba midi midi ba ba ba benn waxtu di 13 heures conférence lañ fas yéene def ci teewaayu sëñ Maam Mor Mbacke incha allah rabbi taala 13 heures 30 fas nañ yéene julli tisbaar 14 heures di 2 heures fas nañ yéene door xéwlu yi ba 3 heures bu 3 heures et demie daañu jooxe li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi dajale kilifa yi àddu yene fii yene fii ak sëñ bi ñu seere ko li ñu xam ci taalibe yi moom tam mu wax leen li mu bëgg ci ay euh, ak njabootam bu bu ñu julee tàkkusaan nag foofa ziar lay doon ba euh, ba ca guddi kuréel gi yeggalee li des ci guddi gi wasalaam. bisimilah rahmaani rahiim mbokk taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant. di leen woo ci ngan gi nu sëñ Maam moor di gane si fii ci Emilia Romagna et Marche et Abruzzo maa ngi wax nag ci turu euh, daayira Maam Jaara yi nekk fii ci ci euh, région bi yëpp di leen ci woo ñu ñëw ci liggéey bi fii jigéen ñi kenn mosu leen ci mën nan def nan daan def ñëw ci liggéey bi def nan daan def te bu euh, di leen woo nag ci bis bu njëkk bi di àjjuma ci signature protocole journée ma du Bamba bi nu may fii région de Rimini mayee fii nañ ci ñëw 10 heures ñoo ngi koy defee ca euh, euh, Rimini ca province ba ku ko xamul boo ñëwee fii ci kër sëñ Touba ñu yóbbu la fa. waaw ñu jox Serigne Cheikhouna Mbacké micro bi mu soññi ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci Emilia Romagna et Marche jullit ñëpp mboolem ñu yox asadu an laa ilaha illallah muhammadu rasulullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ci ndigalu Seex Sidi Muxtaar Mbàkke euh, ñi ngi soññee bis bu mag bis bu tedd di bisu Sayxuna Seex Ahmad Bamba muy bis bi ñu baaxoo def fii ci Touba Rimini muy kër Sëriñ Touba yi ñi ngi ciy fàttali bépp taalibe nag bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ngi wooy itam mboolem ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal lislaam muy murit xaadir tijaan laayeen bàyyiwuñ kenn ndax bis bi bisub Serigne Touba la te bisub Serigne Touba mooy bisub lislaam kon jullit yëpp ñoo ko bokk ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lazina ila zarzara xazadu ziyarati farahu tarini awsar